wa amma nag ñetteel bi yenent bi ne na mujjub jamono yàlla dafa araamal njaaloo yàlla dafa araamal njaaloo waaye mujjub jamono gaañe dañuy daganal njaaloo ay mbokk yàlla nañu yàlla musal ak ñu xool tey ni njaaloo mel tey suñu àdduna bi laa siyaama tey suñu réew mi fii laa siyaama tey suñu ndakaaru njaay fii mbokk yi loo leen jàngale ci alquran defe naa bu ma jumale ci suutul isra wala taqarabu zina wala taqarabu zina innahu kaana faishatan wa saa sabila bu leen jege njaaloo la yàlla bul laal bul jege soril waaye nag mbokk yi tey ñu xool njaaloo boobu tey naka la mel tey suñu ëtt ku yàlla yërëm rek moo fi nekk mbokk yi te yàlla nañ yàlla yal nañu yàlla yërëm yal nañu yàlla suturaal néew na ci ay xale yoo xam yaa ngi leen di gis ñuy dox di dem muy ay góor ak jigéen ci wàllu góor ñi néew na ko ci xamul mbiru jigéen ci wàllu jigéen ñi néew na ko ci xamul mbiru góor lépp nag ci li nga xamante ni lii mu ngoog yàlla gërëmul yàlla kontaanu mbokk yi mu nekk lu doy waar daganal gi nag gënuma leen ko xam dama naan ñun ndax ñun ñooy état bi gars yi ñoo ko daganal ndax tey policier ngi nii gendarme ngi nii bu nekkee di ramasse ba yenn certaines heures yi moo xam deux heures jëm trois heures wala sa une heure ah bu dee ab xale bu jigéen du ko laaj foo jóge de foo nekkoon ba heure bi lim koy njëkk laaj mooy ana sa carte ana sa carte hmm? xale bu jigéen bu roccee carte ne ko mu ngi nii da ko naan waaw demal. waaye bu fa nekkee di lappi lappi ah di wax ay waxu kasaka eh yéegal ci oto bi la koy wax mu ngo ndax ñoom ñoo leen ko autorisé te mooy gënuma leen ko xam euh, carte yi nga xam moom lañ leen di jox muy jigéenu taxawaalu yi nga xam dañ la naan demal fu la neex yendu fu la neex fanaan même ku la wax ni sax sa bët xonk na ñëwal fii bu ko defee ma digaale kook yow ma digaale kook moom parce que ñoom ñoo leen ko autorisé te mbokk yi njaaloo googu tey tasaaro na tasaaro na ba nga xamante ni bi mbokk yi yal nañu yàlla musal loolu ko yàlla yërëm léeg-léeg euh, yenn béréb fii ci Dakar du ma tudd ndax yéen a ma ko gën a xam yéen a fi dëkk am na yenn certaines heures yoo xam boo fa demee dangay ngay fekk jigéen ñaa ngi taxawaalu te njaaloo googu dem dama xam même am na léegi sax ci yenn ci ay góor ay góor yoo xamante ni ni jigéen ñi taxawaaloo ñoom it noonu lañuy taxawaaloo mbokki mbokk yi di ma war mbon mbon bi fi nekk dafa ëpp foo xalaatul mbir yi àgg na fa rek fekk weesu na ko ay yenn góor di jaay seen bopp ay yenn jigéen yi di jaay seen bopp ci lu doy waar te mbokk yi yeneen dafa amul wax gis nga njaaloo ku ko bàyyi. yàlla dig na la juróom benn mbugal. ñett yi ci àdduna la yeneen ñett yi mu ngi lay xaar yowmal qiyaam te ne bi ñett yi njëkk ci àdduna yeneen bi ne na njaalookat yàlla day rocc ci moom taarul islaam ñaareel bi yàlla day def mën nga ne ku gàtt wërsëg bi maanaam su wërsëg mu ngoog parce que loo am rek dem jox jigéen ñi yàlla du barkeel sa benn wërsëg mu ngoog ñetteel bi nag mooy gàtt fan gudd fan yàlla du la ko may mukk mbokk yi gënuma leen ko xam sida ngi fi taxaw jéemula tuub mu ngi sa kanam léegi yàlla yen la ko léegi nga gis moo tax mu ni ñett yooyu yàlla dina ko nattoo njaaloo kat taarul islaam yàlla da koy rëcc ci moom gàtt wërsëg yàlla da koy nattoo gàtt fan yàlla da koy nattoo ñett yi lay xar àllaaxira nag mooy bi ci njëkk waxtu bu sukuraat taxawee ci sa kaw yal nañu yàlla musal mbokk yi sa dee du yóbbu day tar ñaareel bi boo dee ba àggal bàmmeel nag mu ngi lay xaar yan nañu yàlla musal mbugulu bàmmeel yonent bi ne yàlla dina la ko yen yow njaalookat bi ñetteel bi nag mbokk yi mooy keroog bu yàlla nag taxawale yowmal xiyaam te mooy bésu taxawaay ba ñi yàlla naan yowmun asirun ala alkafirin xeyra yasiir nga xam yàlla dinaa safal sap ci ñooñu nga xamante ni ñooy ñoo nekkoon jàmm yi ma lànkal te mooy taxawaay yomal xiyaam yàlla dina la ko yenn ba nga yëg ni mu ngoog saf na ci yow sap te mooy taxawaay yomal xiyaam bu ko ne ci aju mu ngoog yàlla dina la ko nattu ba tax na mbokk yi wàllu njaaloo googu nag eh, ni ko état bi daganale mbokk yi noonu sax la roogaatee rooga ba ci kër yi yenn ci ay papa yenn ci ay yaay sa mbokk yi dañoo daganal njaalu léegi yal nañu yàlla musal waaw ndax daganal njaaloo mënul weesu yow en tant que papa nga ñëw jëndal sa doom colin goo xamante ni gi mu ngoog day tax xale yu góor yi woo ko ci seen bopp wala yow en tant que yaay nga ñëw jëndal say doom bu jigéen colin goo xamante ni gi gënuma leen ko xam te mbokk yi loolu yàgg nañ ko di waxtaani sax léeg-léeg ci yenn waxtaan yi ngir conseil rek waa yi nañu dee bàyyi xel ci njaboot yi ndax yóbbal xiyam lu yàlla di laaj la ni nga sàmmee woon sa njaboot ba xattaa sax même ñun ñi fi nekk ñi fi am ay grande sœur ak ay petite sœur dafa baax ñuy waxtaan ak ñoom ci wàllu googule ngir mooy tundi loo leen loolu le ndax lu tax mbokk yi bëri na ay xale yu góor ak maanaam yoo xam daanaka dañuy taxaw ci buntu bitig yi ci bopp koñ yi ah mais dara taxu ñu fay taxaw lu dul tooñ xale bu jigéen rek cokkaas xale bu jigéen rek ku ci nooy bopp mu ngoog ñu am lu ñu defanteeg yow gënuma leen ko xam mbokk yi ci anam bi may waxee ndax yonent bi moo ko wax umirtu an uqaatiba naas ala ala qadri uqulihim umirtu an uqaatiba naas ala qadri uqulihim dañ maa digal bu may waxtaan ak nit ñi naa leen wax solo kenn fi seen xel yi mën a jë toll ak li seen xel yi mën a jël rawatina shabab yéen jeunes yi nga xam yii la mbir dafa bokk ci màndargay yowmal qiyaam te mooy njaaloo bu tasaaroo njaaloo bu ubale mbokk yi bëri na ay xale yu góor yoo xam ne dañuy taxaw ci bopp koñ yi ak buntu bi yi léeg ab xale bu jigéen. ne tël comme ni ngeen déggee parce que papam jëlal na ko jumbax aawut sol lu dang lu seere hmm? dem ba sax am na ay xale yu nga dañuy sol xaw ma check down lañ koy wax nga xam da ngay solu mais sa silib mu ngi ci biti subhaanallahi alazim léegi lu ñuy def da ngay benn copain bi copain eh, booy booy booy yaa ngi check booy bi di ñëwaa mais booy booy bi mool naa mais booy xoolal daaw na booy bi mais booy xoolal tef nga talaata ko ah tef nga mbej ko te mbokk yi nañu fexe tubbalaa dee di ñëw ndax bëri na ci ay jeunes tey yàlla li mu digle ci alxuraan nii boo leen di wax ni ngeen wax ay wax yu rafet ay wax yu jub xuulu li naa si husna tey mbokk jullit yi wax yooyu dañ koy patam patami léeg-léeg da ngay toog ay xale yu góor di waxtaan ci kàddu olof rek bi mais dañ ciy dugal saraxule manjaago anglais bi français bi lépp dañ koy rëbëj ci biir. ci ay wax yoo xamante ni subhanallah al azim hmm? booy cegal booy bii di ñëw booy est-ce que yaa ngi lug booy daawnu booy bi hmm? mais booy booy bi mool naa mais booy def nga talaata ko mbañal léegi ne booy benn kopp lu mel ne egel eh, xale mi ak ñàkk faydam gees ñu ko sumar ak kaay yow paa yi fi nekk na dañ ma jéggal ndax xale yi laay waxal il faut nga am <laughs> foo tolloo jëm ndax mu ngoog ñu mën a dégg li ngay wax. e eh, su ma rak gel mu su kaay yow waaw parce que loolu moo taxoon sa papa jënd la ju bax aaw demal xale yu góor yi woo la ci sa bopp ko defee ne mu ne yagar yagar ak ñëw ak ñàkk faydaam te rawatina yéen xale yu góor yi xool leen danger yi ngeen di def yow benn l'islam daf laa tere toog mbedd l'islam daf ko tere de toog mbedd yonent bi daf ko tere ba saxaaba yi ak waa yarsulaa mbedd gi mooy suñu grand place fi la toog di waxtaan di daje. yonent bi ne bu fekkee ne mënu leen ko bàyyi léegi na ngeen jox mbedd mi àqam saaba yi ne ko lan mooy àq mbedd mu ni benn boo toogee ci mbedd na nga gëmm say bët lu aram bul ko xool muy benn ñaare du kolorom bu nuyu na ko fay mboolem loo gis muy lore ci mbedd mi dindil tegg sànni fële mu ngoog ba tax na na nga digle lu baax ci mbedd mi dee fi tere lu bon mbokk yi chartay mbedd toog mbedd mooy lii lii boo ko mënee mën nga toog mbedd mais boo ko mënul dañuy sant demal nga tugg ci biir